aada boole ci cofeel gu dul jeex di leen nemmeeku di leen ziyaara di ñaan ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla yàggal seen taxawaay ci loolu itam dinañ ci boole ñi nga xam ne faaw sax dañ ciy bokk muy ñi nga xam ne mooy xalifa généraux yi nu ngi leen di balu àq bu baax a baax boole ci cofeel boole ci itam di leen ñaanal yàlla waaye di sàkku ci yéen ñaan macha allah ñu ñaanal itam ak bàyyi bàyyi xel képp koo xam ne jamono bi ñoo defee émission bi yow dafa fekk nga nekk ci clinique yi hôpitaux yi ak dispensaires yi ñu ngi lay massalu coono toggaay yooyu macha allah di ñaanal acteur de la euh, acteur de de santé yi fa nekk di ñaanal itam ñi nga xam ne euh, ñoom ñooy gunge maladie yi macha allah bàyyi xel itam ba tey ndax àdduna bàyyante xel la ñi xam ne caabi daf leen a féete gannaaw ñu ngi leen di ziara di leen massalu coono toggaay yooyu di ñaan yàlla ñu gaaw jóge foofu ba doxi seen ay soxla la ñu ngi ñaanal ñi nga xam ne itam Ah, dañu baaxoon di ànd ak ñoom tey ñu nekk ci njéggal sunu borom njéggal googu yal na ko yàlla yokk ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal sunu wayjur yi baax yi sunu soppe yi suñu sunu sunu maam yi macha allah ñaanal leen yal na leen yàlla yóbbu aljana macha allah aljana yi gën a kawe képp ku nekk ci tiis wala ci njàkkare rek ñu ngi sukk sa wet di la nemmeeku di la ziyaara di la wax rek na nga muñ ndax àdduna moo ni nuyoo noonu waa Tiwaawoon di ko nuyoo waa Ndiassane nuyu ko waa Ceneba Sekkeen macha allah nuyu ko Saalum Saalum yi dem fépp foo xam ne daal kilifa diine nga fa ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax waa kër Cheikh na Cheikh Saad bu sunu xarit yu baax yooyu ñu ngi leen di ziyaara bu baax a baax a baax a baax waa Pire. duñu leen fàtte ndax ñoom itam xam ngeen ko mbokk yi dañoo jëm ci bës bu mag macha allah bés bu am solo muy li nga xam ne mooy gàmmu gàmmu bu mag bi di am le 7 décembre ci kattanu sunu sunu borom macha allah ñuy ñaan yàlla àgg fa ak jàmm di ñaan yàlla rek yàgg ci dem. lépp loo xam ne daal ñaan nañ ko fa bu boobaa yàlla na ko suñu borom nangu bu baax a baax a baax a baax ñu ngee kontaan di toog ndoy baan di waxtaanee actualité boo xam ne saa bu nu xëyee rek gis ci lu ñu yéem muy violence faite aux lu ñu war a moytu la ndax da ngay dikk sax bëgg toog def émission ndoy baan woon la image boo xam ne yow da ngay wax ne lii du Sénégal pour pourtant ci suñu dëkk lay xewee waaye nag ñu kontaan ndax démb yëg ngeen ko yéen ñëpp fële ca euh, ministre yi fa nu daje ngeen waxtaan solo bu fa jub ba nga xam ne incha allahu taala lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu pédophilie lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu violence boo xam ne dañu koy teg jigéen maanaam ji violer jigéen dafay daal di nekk loo xam ne dañ koy criminaliser bu boobaa dana am ñoo xam ne wax dëgg yàlla am na ñaawteef yoo xam ne ñu ngi koy teg jigéen dootuñu ko sañ a ci ndax mbir moo gis faw ay sanction taxaw ci bu ñu sanctionné wul defe nañ ne ordre du am doy baan faw ñuy jël ay sanctions yu yu mag sanction daal di koy teg maa ngi lay nuyu bu baax. Eh, waaw ñu ngi lay ziar. mais choqué nga ma de yëg nga ko. <laughs> kilifa ci réew mi yëpp waaw. <laughs> lii moo lii la nii lii da nga du Sénégal ndoy baax. ah lu tax du Sénégal Sénégal gii la di Sénégal Sénégal gii la démb la rek démb. démb démb moment bi ñuy waxee dañuy def 16 jours d'activisme boo xam ne mhm. dañ ciy waxtaanee nañu arrêté mhm. stop au viol mhm. waaw loolu la ñuy nuyoo ñuy ziar kilifa diine kilifa aada ci réew mi yëpp eh, di ci jiital sunu sëriñ ba Cheikh Bassirou Abdoul Khadr di ko ñaanu mu yàgg fi lool te wér amiin di ziar sunu xalifa ba sëriñ Mansour Cissé ak sëriñ Maodo Cissé ak euh, waa famille Tafsir Abdou Cissé sëñ Amar Cissé yëpp ñu ngi leen di ziar. Mhm. di leen ñaanal ci gàmm gi nga xam ne moom la ñuy bëgg a yegg fële di samedi la set incha allah. di ziar le maire Serigne Boub di ko ñaanal jàmm ak euh, sëñ mu sunu imam sëñ Moustapha Ka. Mhm. Baye Bado Dieng ak euh, notable ya fa ne yëpp moom parent ji bi jaay ñu ngi leen di ñaanal jàmm. Mhm. di ko ñaanal waa réew mi yëpp yal yàlla def jàmm ci réew mi. def ko ci biir kër yi def ko ci sénégalais yi bitim réew jàmm ak sutura na ko yàlla def ci réew mi te góor ñi nay yàlla na yàlla dindi nay gi ci seen ñoom nee naa yàgg naa la fii ni la góor gu nay du dem àjjana mhm. nay nay baaxul ci doomu aadama rawatina war rawatina góor euh, jigéen ñi tamit nañuy da nga dugg ci actualité ba tey jigéen ñi tamit ndax newoo fi jigéen ñi tamit nañuy doylu xam nga góor warta nay jigéen nay doylu dëgg la yam ci li dépense boroom këram defe naa loolu doylu la mhm. góor yooyu itam soo takkee jigéen yor ko bul nay ci moom soo dee nay ci moom yàlla day tëj say wërsëg donc góor gu baax du nay parce que soo dul joxee dara du dugg waaw soo fekkee dara di dugg pare doo doo ko joxe bu dégg mu sa dee ñu joxe ko. waaw donc mi ngi noonu comme ni nga ko waxee rek li image bi ma la woon nii xale bu jigéen bi ndeysaan ni mu jonkama borom këram dóor ko ba kanam gi gis nga deret ci ni mu baree. ah man de deret instant bii may wax ak yow ña nga hôpital pour uti certificat médical pour porter plainte jëkkër ji. parce que nag dafa am ay ndijaay yu yu am doole ci yu mat ndijaay yu mat ndijaay yu ko taxaw te affaire bi xam naan à suivre la fii ngoon fii suba affaire bi dina dina dina avancé ak sa jabar lu mu la mënti def du raison nga koy dóor ba ba mu ba ba deret sàng ko deram deret sàng ko carrément ak lu sa jabar mënti def moomoo ko sa soxna rek la mu nekk sa soxna taxul nga moom ko mm-hmm. juróo ko jëndoo ko mm-hmm. yàlla sunu borom moo moo la yilif yilif ko. su fekkee da nga dem ba mënutoo ko yor nga libéré ko. soo demee nga xam ne mënutoo ko yor nga wala nga dem ba déggalatu la. wala nga dem ba nga xam ne da lay désobéir nga bàyyi ko mu dem yoonam moo gën nga koy def yenn yi. ndaxte loo bëggul ñu def ko sa yaay. waroo koy def yaay jàmbur ak say sœur xale ba doon na def heure bu wàccee day fekk papaam di dóor yaayam. dëgg waa koñ ba di ñëw. Mhm. papaam di dóor yaayam papaam di dóor jékki-jékki moom booy bi ci boppam xale bu góor bu xale la mujj gi ginnaaw yaayi papaam mi ngi ci kër gi mooy mu bu yar fu papaam di dóor yaayam rek mu dem di dóor yaayi papaam ca ca néeg ba ca la papa ji bàyyee loolu xam nga lu kenn digalu ko kenn kenn ko kenn mais koo xam day liggéeyi maçon la woon heure bu liggéey ba wàcc day fekk koñ bi fees del del ak papaam mooy dóor yaayam d'après day tëj kër gi ba kenn du mën a àtte li ma la wax nii HLM Grand Yoff gi la woon booy bi tëb miir dugg ci biir kër gi xeex ak papa ji ni ñu waxee papa ji ci la daanoo daano boo xam ne ci la doxee paralysé ba tey jii ma laaj ko booy mun na ma man ba ma juddoo ba tey damaa xàmmaliku mosuma toog gis weer woo xam ne sama papa duuru sama yaay xam sooy dóor jigéen ba mu am ay doom yoo xam ne suñu la téyee doo yëngu. ah tegal foofu loxo de. nit a ngi tas këram moo tas këram. waaw di dóor koo xam ne am na ay ponkalum xale lu góor waaw ah, soo dee dóor yaayi jàmbur. Mm-hmm. te mu am ay doom yoo xam ne suñu la téyee doo yëngutu. Mm-hmm. ah war ngaa xool nooy def. parce que yaay yaay la rek yow yaay sunu papa yaa ñu jur mais da nga am yaay. sunu yaay ji ak lu mu mënti def dóor yi nga koy dóor ci sunu kanam neexuñu. koy mënti dóor yaayam ci kanamam mu bàyyi la ca xamal ni neexu ko muy bébé ba wala mag ma neexu ko donc. am na fu fu sa njaboot yu toll da ngay bàyyi yenn kàddu yi ngay wax. seen ak yenn comportement yi boole ndax package la. kàddu comportement la àndal c'est que dafa am wax yoo xam ni. Mhm. koy wax ku jigéen ay doomam toog. dëgg la am na góoru Sénégal yoo xam ne tey jii dañoo mën wax bu ñaaw seen jabar yi toog ñuy wax wax yu salte seen jabar yi ci seen kanam yu doom wala ci say kanam yu wujju c'est c'est góor daal bëgg naa ci góor bu am classe am maanaa xam nga am élégant xam nga xam nga ni sa jabar ji dafa sëkk da lay tooñ mais classe mooy nga xam ni nga woo ko ci néeg wax ko li nga ko bëgg a wax yéen ñaar ci néeg bi te bu mu génn néeg bi mais dafa am ñoo xam ne dañoo mën a bàkku bala ñoo kontaan dañoo saaga nday seen jabar ci publiquement am ñoo xam dañoo mën a bàkku bala ñoo mën a am lu leen neex ñu ñu ñu ñu toroxal seen jabar paa ñu dóor ko de. Mm. mais ñu toroxal ko am na wax yoo xam ni dóor sax ko tane. très bien Ben Diop ñu ngi lay nuyu bu baax a baax xamuñu <coughs> foo féete waaye yaa ngi suñu xel ñu ngi nuyu itam soxna Kani borom Calux Calux euh, Calux euh, store vraiment ci écharpe yi rafet yi nga xam ne fan yi moom rek la noo jox macha allah di nuyu képp ku toog di ñu seetaan te bàyyi xel émission bi. mën ngeen a wootee ci 88 628 22 22 88 628 04 05 soxna Mia ña ne bitim réew nee nañu ñoom daal dañuy bëgg dugg waaye dañuy am ay jafe-jafe yu mat sëkk loolu nag dafa doy waar nee nañu nañ ko seet ñoom ñëpp sénégalais de l'extérieur yi ñu ngi leen di bàyyi xel yéen itam ñi nga xam ne da ngeen nekk hors du yi nekk à l'extérieur dëgg-dëgg xam ngeen ne bu ngeen jotee foofu du Sénégal yéen i neen yéen a fa nekk wala communauté sax bii dëkk dana dul gisante toujours juboo leen dafa gën na leen ndax ñàkk juboo yi muy indi ci biir kër dañu bare euh, soxna say commencé ne man duma ko faale daf may wax wax yu rëy duma ko faale ku góor ki ne sama biir kër la nekk gannaaw dafa ñàkk kilifa dootuma ko faale mais ku ci nekk mi ngi faale moromam parce que dañuy dem ba benn moment mbir am bu rëy boo xam ne am na lu jiitu woon ci xol yi ndoy baan dafa fekk dañ ko arrangé woon góor li tax ñu naan ko mooy takke dañoo yaakaar ni am na lu mu ëpp ëppalee ku jigéen ki ñoom ñu ne may nañ ko soxna may nañ ko soxna nga jël soxna si yow ku góor ki kenn muuru la yow nga mm-hmm. sëyi ku jigéen ki lañ muur mu sëyi mm-hmm. mu sëyi si mu nekk ci biir kër gi ngay génn jël saw ñaq di ko jox mu lay toggal añ mm-hmm. di toggal reer di la jural ay doom <coughs> kooku noonu am na fu yàlla teg. Mhm. yow am na fu yàlla teg fu kawe. Mhm. suñuy julli nga koy jiite. Mhm. kenn newul jigéen ñi dañoo dañoo parfaite à cent pour cent mi kenn ñu ci bari kenn gënu leen a sëkk. soo leen toppee da nga leen di rey. mais dañuy yaakaar ni yow yaa ko tane. góor il faut savoir souffrir en silence. di gere yu baree baree bare di tànqamlu di jëlale góor du gérer détail. comprends nga. soo dee gérer détail chaque jour yaa ngi ay yaa ngi yaa yaa yaa ngi violenter sa jabar wala ngay violenter jigéen ña nga ña nga nekkal. Mm-hmm. mais violence yi nga xam ne moom la jigéen ñi di dund ci biir kër yi comme ni ma la ko waxee violence verbale lu garaaw la violence physique mooy li ma la woon léegi. psychologique. violence yu bari na violence économique mooy góor gu nay gi ñu sa way Ah, dañ koy dugal kon ci thème bi de. violence économique la. ci nay violenté na jabaram. waaw ko mais mais mënoo tey jii. di xuntu ba nga delloo ko weccit. de yàgg naa la wax fii. Hmm. da ngay gis góor gu am xaalis bu bari ñu naan diw dafa am alal. waaw wax nga ko fii de. mu tabax këru 500 cent million jënd fauteuil yi 2 millions yi jar télé ba rek un million lay jar tabax kër gu mel ni Pana. soo dajee géeg ba cay xëy bay xëy bay sëy ca kër ga da nga naan kii du moom. man dégguma la. dégg dégguma la dama ne tabax këru peut mën naa dem ba 6 millions. sax voilà voilà këru 500 millions. waaw te këru salon ba rek salon ba rek. 10 ah. millions la. salon saal ba laal ba un million et quelque et yow ku góor ki oto bi muy dawal ransi bi muy dawal mari taali. cuisine bi 4 millions. 4 millions voilà sol ay gestionnaires yu cher. ci sa teewaay. di la remercier vraiment. Mm-hmm. ci jóg bi nga xam ne saa bu nu la woowee nga dikk. Ah. et sans problème macha allah bisimilah. maa ngi lay delloo nuyoo bu baax Eva. Euh, di la gërëm di la sant am mbégte. Mm-hmm. Euh, toogaat ci plateau wareef bi ànd ci ak ndóoy. Mm-hmm. ci waxtaan yi nga xamante ni comme ni ma koy waxee saa su nekk. képp koo xamante ni danga ñàkk solution wala am yu jaxasoo sa bopp boo koy topp yu bëri mën nga si am saafara waaye itam yu bëri mën nga si am yoon boo xamante ni boo si jaaree rek sa jafe-jafe yu bari suñu borom subhanahu wa taala mën na ko saafara ndax li fiy génne si jàngale ak si njariñ ak surtout si si si yeete ci ni nga xamante ni noonu la noonu la ñuy dundee si biir société bi kon bëgg rek lañ ciy am thème bi ngeen indi semaine bi amati na solo ndax loo xamante ne nii la wax dëgg yàlla ñëpp a ngi koy joytu te rafetul jekkul jaaduwul rafetul jekkul jaaduwul te bu dee diine bi ñu bokk di diine yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di islam moom la ñuy dund yooyu yëpp dafa nekk loo xamante ni daf ko baniir daf ko dàq te jullit bu nekk war ngay fexe ngay conformé wu maanaam di tënku toujours mhm. si li alquran jàngale ak sunna sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam te jigéen ñi trésor yàlla lañ ndax bu yàlla jëlee li gën a fonk li mu gën a fonk di ko def si biiru jigéen ba kër balaa mu koy mucc te moo di doomu aadama kon kooku fonk ko moo war toppatoo ko moo war waaye itam surtout yërëm ko ndax koo bëgg di nga am yërmandeem te koo yërëm am na loo xamante ni doog ko dog ko néeg def Eva te muy dëgg macha allah moom dafa ñëw dabe rek daal di tënk waxtaan wi Euh, ni ñu ko waxee rek ñi mel ni ñoom Eva Tra li tax ñu nekk ci ji jaaxa dafa fekk topp ñu lu sunu boroom wax sunu borom li mu wax yonent bi sopp ko ku ko topp rek di nga noppalu mhm. yu bëri ci àdduna rek ñun mhm. ñoo koy teg sunu bopp mhm. macha allah ndoy baan lii tam amati na solo de àdduna kër yi dañu xumb de ah, allahu akbar kër yi kër yi dafa toj Isa la gën a xam loolu moo tax euh, ci sunu waxtaan yëpp Miya Ndour ñu ngi lay nuyu di nuyu waa bu baax a baax dafa am lu ñu war a éviter. Mhm. li may wax. Mhm. diw day wax waxi këram ak a ñàkk sutura. Mhm. diw de moom li xew ci bopp bi yëpp wax na ko ak a ñàkk sutura. Euh, diw du muñkat. diw du nangam da ngay dem ci tubaab yi. taseeg benn maire ci ci ci métro. oui oui comment vas-tu madame radadana ma nièce mon mari man sama euh, euh, dëkk sama nangam en fait. dafay yebbi li ci moom mm-hmm. parce que ñoom amuñu gëw ma ne ñu ngi dund social living bu baax mm-hmm. dégg nga. Mhm. mais soo ñëwee fii nga xam ne fii la lépp jekkee ci mhm. lu baax. Mhm. fii la lépp am. dañu commencé benn côté ngay wax ñu ne amul sutura. ngay wax ñu ne kii daal du nit ku baax. tey nit day nekk ci jafe-jafe. ci euh, néegu sëyam. jëkkër di ko dóor di koy xas di ko def yu kenn xamul. mu xëy suba fekk boppam tribunal. su demee tribunal et li ci grave mooy. day am ay nit yoo xam ne. dañ ko contre. am ay famille yoo xam ne dañuy taxaw ne ko doo ko fi defee. nit day am métit ci doomam. war a dem porter plainte ñu tën. Euh, euh, téye loxom ne ko demuloo te yow mm. boobu yàq nañ sa doom ak yu bare bare. xam nga Eva. Mm-hmm. danga indi lu am solo. gis nga alquran toujours mooy li ma lay wax. Mm. yàlla dafa am fu mu waxee ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam si ñaar. waaw. ne ko bu dul woon yërmande bi ma wàccee si yow nga amee ko di ko dundeek jaam yi wàccee sa bopp nooyal sa bopp lool di toroxlu te toroxoloo sa bopp xam nga toroxlu ak toroxal sa bopp bokkul di toroxlu te toroxaloo sa bopp bu dul woon ak loolu kon gars yi dinañ dem seen yoon maanaam boo fi nekkoon di jaay na xari deret ak maa yonent bi man la yàlla yónni maa toll nii dañ ne la fa ak sa diine dem seen yoon fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta fadan galida al qalbi ñu ne ko luy xew yàlla mu ne lan faddu min xawlik kon faafu anhum na nga leen accepté tel qu'ils telles qu'elles sont. góor ñi ni ñu mel accepté leen jigéen ñi ni ñu mel nga accepté leen mais lépp na ko teg ci dëgg ak yoon lépp nekk dans les règles de l'art man fab min xawli kon fa'fu anhum wastaghfir lahum ba pare boo wéetee nga di leen jéggalul yàlla ndax nit matul waaye nag wa shawirhum fil amr mbir mi ci lañ bokk dekk teg ci taabal ji di ci waxtaan ak ñoom feneen fi mu ne ko wa bay shura baynahum lépp loo gis rek wax nga ko léegi ndooy wax ko kër yi dañu xumb mais dañ koy waxtaane xam nga loolu lu koy indi ñaar yi nga xamante ni man nee naa mooy baasu sëy ba ñett te nit yi dañ dañ ko dul bàyyi xel ban ak ban ak ban ak communication benn compréhension ñaar sincérité oh ay nit bu leen yàlla communication compréhension sincérité ay nit su leen yàlla boolee mhm. il faut dañuy waxtaan mhm. waxtaan bi ñu ànd ko ak dëglunte sooy développé man dama lay déglu ne pat su may développé danga may déglu ne pat waaye suñu paree si loolu lépp nag ne ko sincérité lal li nga may wax na doon dëgg li ma lay wax itam na doon dëgg su ko defee rek jàmm du am gis nga jamono yonent sallallahu alayhi dafa am benn soxna bu ñuy wax xaw la dafa toog benn jour xam nga lu ko boroom këram wax su ma la nammatee xam yàlla naa xam sama ndey ji ma sukk jur subhanallah moom la arab di wax af zihaar hmm. pour wax la yàlla dafa bëgg ñuy déglu nit xaw na dem si yonent bi sallallahu alayhi wa diis ko ko. yonent bi sallallahu ne ne teg waxul dara mu ñëwaat si yonent bi sallallahu alayhi wa diisaat ko ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mënul jël benn décision te yàlla jox waxu ko. comme dafa am loo xamante ni ñaar la ëmb problème boobu problème diine am na si ndax li ko boroom këram wax faaw diine am lu mu si wax waaye itam problème social am na si ndax digganteem ak boroom këram coow am na si mu nekk ñaari problème yoo xamante ni dañ ko war utal solution. kon nañ tey déglu la. waaw yonent bi sallallahu di waa soxna si di bàggante di dem di ñëw di bàggante di dem di ñëw di bàggante ba ñëw di dem ba ñëw. yàlla yabal jibril alayhi salaam nekk kii nag sonn na xam nga lu xew. mooy qad samia bi ngeen di dégg si alquran. qad samia allahu qawla allati tujaadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila allah wallahu yasmau taxaawarakuma ñu ne lu xew mu ne inna allaha samiun basir yàlla na ko dégg naa. soxna si ñëw si yow di joytu di ñaxtu si li nga xamante ni moom la ko borom këram wax mu metti ko lool su ma la namatee xam yàlla naa xam sama ndey ji ma jur mu ngi koy joytu en tant que borom këram wax ko loolu mais itam seen diggante rataxatul ndax wax jaa ñagas mm. mu ngi bàggante boobu ba léegi mm. léegi nag il faut décision jot décision wàcc solution am yàlla na ko nag bés ni ci tey képp koo xamante ni da nga waxati sa soxna mm. su ma la namatee xam xam sama waajur bu jigéen bi ma sukk ko jur balaa muy jotaat si soxnaam na goreel jaam maanaam balaa muy yeggaat si moom ba ñuy sëq ñoom ñaar da goreel jaam soo ko mënul yàlla nee ne nga woor ñaari weer tegle ko ñaari weer yu tegaloo si kiy wax soxnaam su ma la nammatee xam xam sama ndey ji ma sukk jur ba sànq ba tey ba saa si tembe fi ñu toll nii alquran laa lay wax ah. ñaari weer soo ko mënul nga leel juróom benn fukki miskin alquran la yàlla moo ko wax walladina yuzahiruna min nisaihim thumma yaquduuna lima qaalu fa tahriru raqaba goreel jaam min qabli an yatamassa laata ñuy jonjoo ñoom ñaar encore dalika yuaduuna bihi dalika tuaduuna bihi wallahu ma yamaluuna xabir ku laaxu defoo loolu nag jam joteex sa soxna yàlla nee na maa ngi si tekk dafa am fu ma jëm beneen bi mu ne fa man lam yajid fa siyaamu shahrayni mutatabiayni soo ko amul nga woor ñaari weer yu tegaloo soo soo ko mënulee yàlla nee na nga leel fa man lam yastati min qabli an tamassaa fa man lam yastati fa it'aamu sittiina miskiinan zaalika litu'minu billaahi yàlla nee na loolu mooy wane na yéen gëm ngeen yàlla waa léegi tey ñaata nit ñoo fii wax loolu seen soxna xëy àndaa tax ñoom ca ñett yi nga xam ne mooy sart bii tax ñu war a jonjoowaat ñu si benn man kontaan naa fii nga daanalee sa wax du Eva laaj yow ci sa bopp yaa posé waaw kay léegi nag hmm? tey jii nii moo tax nit ku nekk da war a xam sa faratay diine la borom lax dar yi waxoon balaa dara di xam mais tey jii nii nit ñaa ngi koy waxante hmm. donc mooy que ne y a une mauvaise communication et quant à une mauvaise communication compréhension moom il faut même pas y penser mënul am absolument vrai compréhension su am lu la su amul la nit ki wax pour yow il n'est pas sincère bu dëgg. léegi bu manque de confiance duggee nag kon. waaw de confiance fu mu am nag mooy que ne sëy boobu moom dañuy kay teg si table ji xoolaat ko. xam nga bu ñu waaw xam nga la moo tax parce que sëy d'abord consentement la. te consentement foo ko dégg mooy confiance dugg na. Mm-hmm. nit ki soo ko wóoluwul du ngeen dëppoo si dara. nit ki soo ko wóoluwul. Mm-hmm. mun leen dëppoo si dara. il faut nga wóolu ko mu mën la wax nga mën ko dégg pour ngeen mën a toog door a waxtaan. du dëgg mais tey jii nii bu fekkente ne wóoluwunteewu leen jarul ngeen di waxtaan te bu ngeen waxtaan parce que solution du am kon jarul ngeen di sëy parce que say confiance boo ko la da nga may wóolu ma wóolu la ñu mën a ànd si farat si yàlla ak sunna sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam buñ demee ba dut am problème day am parce que sëy yu bëri loo tax problème du si am. kon maanaam jamono bi ñu ne sëy yu bëri duta ko njëkk a yàq. duta njëkk a yàq te saar bi yàlla def si addu addu mooy benn saar si alquran. Mm. boo xam ne aaya boo si jël fekk si tur yàlla bu ñuy wax allahu. benn saar bi xam nga loolu lan lay signifier importance bi yàlla jox kàddu si doomu aadama ak importance bi yàlla jox boppam moom en tant que turu allahum xam nga lu tax parce que qad sami allahu la yàlla wax yàlla hmm. man yàlla dégg naa dafa jël turu allahu foofu utiliser ko xam nga allahu fii loo koy firee si aay yi mu ñëw yëpp si saar bi hmm. mooy que allahu mii mooy ki nga xam ne bëtam mu ngi tege si lépp noppam mu ngi dégg lépp. waaye itam mu ngi xam lépp moom yàlla subhaanahu wa taala. yàlla nu yàlla jéggal. yàlla nu yàlla jéggal ah, kon loolu dafa nekk aspect boo pour wax la ne. Hmm. maanaam mooy li nga wax sànq nit dafa am foo xam ne bu fa tolloo dafa soxla fu muy yebbee lii si xolam. xaw la lii la def si kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ne ne kii yebbi na problème am si yow te man maa la yónni man maa koy andil solution. bés ni ki tey lii ak lii ak lii li nga siy déggee mooy nit bu andee problème il faut ñu déglu ko. Hmm, hmm. mu yebbi li nekk si xolam yëpp comme ça nga mën ko utal solution xam nga kii bu ñëwoon si yonent bi sallallahu sa yoon mm. kon du baax te duñ ci jëlee njàngat te duñ ci jëlee njàngat moo tax nit ñi ak problème yi ñoo dëkk ni ko Ndoye Bane waxee. Mm. kër li si nekk dafa ëpp. Mm-hmm. il faut nit ñi di am fu ñuy yebbi. mais du ñàkk sutura wala du ñàkk nangam parce que ki la yàlla booleel soo ko dégloo du dem si biti di wax. ak ki dikk di la wax boppam. waaw su la xolam yëgul woon. mu wóolu la. du wax ne la seedeel. waaw du wax ne la néewal ma dénk la. waaw xam nga dañu ne. waaw may ku la neex dénk koo wóolu. ndoy baan wuy li. Mhm. may ka la neex dénk koo wóolu. dénk koo wóolu kii ñëw dénk la ay kàddoom kóolute moo tax yow da am ñaari responsabilité responsabilité bu njëkk bi mooy. Mm. confiance boobu na nga fexe ba bu ko perdre. parce que confiance ciment la benn yoon lay tooy. Mhm. boo xasee ba ñàkk ko si nit ki. c'est fini bu dee Eva Tradé pare ne ich kii dafa soof euh, dafa am image bu ma doy ndoy baan woon mhm. wax dëgg yàlla xam na ko mhm. lu rey sama yaram te mhm. dina bu noppee dina la ko woon dañoo gis ne ci biir kër yi Xasan euh, wax ju ñaaw bare na ci ndax bu jëkkaan ci sunu jamono yi ñoom maam ñoom bu nu seenaan seen boroom kër di ñëw seen xol da daan neex nga seen soxna si muy ñëw nga sant yàlla nga gis sa soxna di ñëw ci yow nga ngay ñaan yàlla mhm. ne yàlla jërëjëf ci ki nga ma may mhm. waaye ñun jamono yii ñu ne mhm. ay coup de poing la ay waxante lu ñaaw li ma naan bu nit mën da ngay mën wax lu ñaaw maa la ko dàq yàlla nañ ci yàlla musal mu wan ñu image boo xam ne ku jël ay coup de poing yu bare dóor ko jabar ji alors fi jabar ji euh, toog nga gis euh, mel ni robinet robinet deret bay ngi mais kër gi yëpp kooku ah. nañ ma baal si terme bi. waaw waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ne kooku sauvage la. Mhm. cey ak service. maa akramahunna illa karimun sallallahu alayhi wasallam wa maa ahaanahunna illa laimun. Mm. nee ne soxna yi noobul rek moo leen mën a yor ñu ne ko lu tax mu ne parce que ay porcelaine lañu. dafa daan jékki-jékki saxaaba yi toog radiyallahu anhu yandur jëlal bi sallallahu alayhi wasallam ne leen nee na soxna yi ay ay porcelaine la mu ne leen rifqan bil xam nga eh. loolu mooy lan de leen def doucement ak porcelaine yi mu ne ko ñan ñooy porcelaine yi mu gestu xool ay soxnaam ne ne hun na xawaariir porcelaine yaa ngi nii da boo koy nettoyé dafa am nooy négocier ak moom ba am si moom li nga bëgg nga teg ko sensibilité mais bu fekkente ne am na noo xamante ni doxalal nga ne ak moom mu daanu toj nga for ko sa loxo dagg nga rëccu nga jële sa gaañu gaañu ak mettitu xol ndax dagg fii lay jàpp boog la kayam comprendre nga moo tax mu ne rifqan bil xawaarir leen yërëm xam nga lu tax mu ne nañu leen yërëm mm-hmm. mu ne parce que amul kenn koo xamante nii si ñun lu dul nga jàppe nga sa soxna ni nga xamante ne nii noonu nga ko war a jàppe lu dul ne di nga am ngërëmal borom bi subhaanahu wa taala Eva ma wax la bismillah nga xëy yow góor mm. sa soxna mm-hmm. laaj la dépense nga am ko man ko di fuuñ fuuñal wala bañ ko ko jox wala nangam mm-hmm. ba xolom tàng si boo génnee loo wuti doo ko am ak wóor jërëjëf Seck ma wax la. ngay jox sa doom sa jabar chaque mm. jour. 5000 mm. francs dépense. Mm-hmm. di ko jox chaque jour 5000 chaque jour 5000 chaque jour 5000 xolam di si sedd loo boo génnee loo wuti ji suñu borom subhanahu wa taala jox la ko xam nga tax. Mm-hmm. wa maa tunfiqu min xayrin ya'lamuhullah mm. yàlla nee na lépp lu ngeen joxe mu jëm seen jaboot di lu baax man xam naa ko beneen bi mu ne <coughs> yasalunaka maada yunfiquun qulil af yaf'alna maa yunfiquun qul maa anfaqtum fa lil waalidayni wal aqrabiin lu ngeen joxe. ñi si gën a yey mooy jur yi ak soxna yi njaboot gi. te njaboot gi ñi ngay njaboote souvent kenn du si jiitu soxna si wala soxna yi donc loolu lépp dafa bokk si yërmande moom dafa daan toog moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xëy. Mhm. xool gis na soxna yi yeewooguñu mu jël pañe bi dem marché. Mhm. bu nduggijee ba ñëw bu xoolee yeewaguñu mu raxas ndugg mi commencé xolli bu soxna yeewu yeexee yeewu mu taal. bu buñ ko nee waa yow lu xew mu ne leen waa mais yéen da ngeen di nelaw yeewoogu leen kon ma jàppal leen du dara dem na marché moom sallallahu alayhi wa ndugg yanu ko benn saxaaba bu xër bu mel ni ndooy baan rek gis ko song ko ne ko sang bi waroo yanu yow la yàlla yónni yaa fi gën mu ne ko lii buñ ko toggee ba mu ñor sama biir bii la jëm comme ñoragul nag sama mbagg gii la gën a yaye maa koy yanul sama bopp kon soxna yi dañ leen wër di yërëm jox leen seen gëdd jox leen seen wàccuwaay xam nga lu tax lu tax jigéen june yaay la même comme ni soxna si génn wax même su amul tout tànk yaay la xam nga lu tax mm. parce que jigéen dana toll si biir néegu sëy foo xamante nii dafay jouer rôlu yaay mm, mm. digganteem ak boroom këram maanaam soxna dina dem ba nekk yaay si waxin si boroom këram si toppatoo si taxawaay si yiir si si si ànd boo xamante ni bu rafet la te loolu day bëggal jigéen day bëggal jigéen parce que dañu ne la maternité est le royaume de la féminité. Mm-hmm. la maternité est le royaume de la féminité. soxna dina nekk ci biir kër. Mm-hmm. yàlla du ko may takk ndeer mais yow boroom këram nga ne mettre ko à l'aise mu nekk ci jàmm ak salaam ba mu sentir na moom elle est mère entre guillemets et elle ne l'est même pas. te li yàlla lay def Assane. Mm-hmm. yow lay feelu da nga gis soxna soo xam ne juru la. juru la de. am nga yaay boo bàyyeekoo. waaye sa digganteeg moom bu la nee jàkk mhm. nga yëg ci yow mhm. ne kii yaay la waaw moom bu la xoolee mhm. muy gis ne kii doom la maanaam doo am différence ak doomam yi nga xam ne moom moo leen jur pour rek dëggal li nga wax waaw xam la moo waral loolu parce que xol ba xolu yaay la xam nga dañuy wax ne waajur boo gis waaw bu gisee doomu jàmbur rek da koy jàppee comme doomam moo tax li ngeen di waxtaane di viol am na loo xamante ni kenn bëggul ku ko def sa doom kenn kon bul ko def benn doomu jàmbur moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon waaja bi mu ñëwee ne ko man daal sama nattu ñu jéggal ma si kàddu gi mooy njaaloo munuma ko bàyyi hmm. sallallahu alayhi wasallam ah, mu ne kaaw mu ne ko toogal mu toog ak allo allo oui oui asalaamaaleykum macha allah waaleykum dama bëggoon bokk ci émission bi ñu ngi lay déglu bu baax waaw man nag comme lu ñuy wax rek loolu kenn ko cautionné violence moom kenn ko cautionné mooy violence sur les deux kii. mooy si côté wu ko góor ak si côté wu ko jigéen. Hmm. dëgg la parce que violence moom bëri na xam nga am na violence physique. Hmm. am na violence verbale. Hmm. tongo sax violence la. tongo ngeen nekk si si kër gi di tongo sax violence la. wallaay wax nga dëgg. parce que problème bi mooy sama benn avocat dafa wax ne jàmm loo ko jëndee jàmm na ko. jàmm mu ne a waaw euh, parce que man lu ma gis ci dëkk bi mooy euh, déception. Hmm. déception moo moo indi violence yi. dëgg déception nag au sens large. parce que kii day séntu am lu muy séntu ci waa ji gisu ko ci. waa ji aussi am lu muy séntu ci femme bi gis gisu ko ci parce que bii loolu ngoro am na yu bëri yoo xam dañ ko doon gis te loo xam du woon dëkk. dañuy foog na nag loolu nag mooy nekk ci biir ci biir ci biir mariage bi. léegi nag xam nga frustration ak déception yu bëri. Mhm. day dem ba sàgg day indi comme lu wax absence de communication day dem ba sàgg ay actes lay indi. dëgg la xol yi fees ngeen commencé di di coow di kii ni comme ça dama loolu je pense que yëpp ñàkk waxtaan moo ko am au début. Mhm. au début comme tubaab nuy wax mauvais départ mauvais arrivé tout est au début. mo mo mauvais départ. mauvais départ mauvais arrivé. oui. moom mauvais départ mauvais arrivé. Mhm, mu ne tout est au début. da ngeen di toog waxtaan lépp au début. Mhm. mais lu bëri si moom di ko waxtaanee. dañuy bàyyi nag si biir sëy bi nag après nag parce que dama leen toog gis nga matin beaucoup d'hommes yoo xam ne maintenant ñu ngi si petit déjeuner yi si restaurant yi. boutique oh. midi ñu ngi si ay kii le soir si boobu man nañu gis ay si yenn kii foofu toog da ngay gis un homme toog ba minuit deux heures de matin ñibbiwul ma ma ne mais c'est pas vrai toog ñu dénk ko soxla mu toog ci mbedd bi ba heure bi. mais femme bi xale yi góor bu kii bi tout pourquoi moom mu nekk ci mbedd wi c'est une irresponsabilité. Mm-hmm. su fa amoon dara lu fa am sax moom du ko xam ils sont aux abonnés absents les hommes sont aux abonnés absents. merci monsieur ñu dénk leen jigéen mais nekkatuñu fa. Mm-hmm. bon doy na waar quoi ce pays là. yaa yaa beneen kii boo xam la ñu war a defaat euh, mooy euh, pour man euh, ñu gën a fonkaat jigéen. gën a fonkaat jigéen gën a valoriser seen bopp jigéen gën a xam seen bopp aussi ñoom seen bopp seen valeur lan la mm-hmm. ak seen mission lan la lan la lan la si yàlla bëgg seen mission aussi mm-hmm. lan la si société bi bëgg parce que je pense que y a benn crise de valeur et une perte boo xam ne d'identité boo xam ne bu fi nekk nit ñi xamatuñu maintenant ki kii ils sont seen bopp dëgg la macha allah xam nga yàlla kam moom moo mel ni mu mel rek mm-hmm. dafa def euh, oustaz dëgg moom bu jibee daf lay neex rek nga ni fatt naa sama nopp waaye wallaay de dugg sa biir xol par force doo ca man dara ak koo mën ci féete eh, dama doon dem régi waaw waa ji li mu wax nii ah. les hommes sont aux abonnés naka absent absent voilà da ngay laaj nag lan moo tax ñuy absenté wu c'est-à-dire voilà da ngay nekk sa kër di fa joxe dépense bu mat sëkk doo añ doo reer Mm-hmm. ay hamburger ak shawarma la la sa jabar di jox. Mm-hmm. ay palaatu ceebu restaurant. te yaa ngi mm-hmm. yaa ngi joxe dépense. léegi nag soo gisee à côté koo xam ne soo ko joxee junni mu toggal ci bu jën boo xam ne sa jabar iñaane na la koo toggal. ndax day day ndax day day day uti marchandise. ndax ndax ndax day day day day liggéey bureau ba la nekk et tout. loolu dina tax dina tax jigéen ñu bari ñooy dàq ñoo génne seen jëkkër yi ci biir kër ya ah. parce que toggatuñu añ. jànq ba la ñuy bàyyi mu toggal leen wala ñu jënd leen plateau ceeb ca restaurant ba parce que su guddi jotee seen jabar yi jëlatuñu temps toggal seen jëkkëri reer dañuy dem ca fasu ba jënd leen hamburger ak jëndal leen ay yoo xam ne kenn xamuñu nu doon ah, mais loolu mooy problème bi moo tax yenn góor yi ñu ci bari ji génn waxuma ni looloo loolu kuñ ko def da nga war a génn toogal si biir kër nga lijjante koog sa jabar mais loolu mooy génne gaa yi demal ci restaurant yi heure añ demal ci restaurant yi ay homme homme marié rek nga fay fekk te nga bàyyi bàyyi nga dépense bu mat sëkk sa kër guddi jotee demal ci restaurant yi ji jeeg ju ndaw ji nga fay fekk ñuy jënd ay palaatu yu kenn xamul ay ay ay ay ginaar ak ay ay ay ay ay shawarma di ko yóbbul seen seen seen seen jëkkër yi iñaa na ñoo toog def benn 30 minutes toog reer bu normal taajal ko seen jëkkër taluñu dara ndax utu dërëm très bien te soo ko wax soo ko bëggee kaa soo ne ah, mm. da nga ba ne stop télé bi xool leen ko stop aux violences les dañuy violenter góor ñi jigéen ñi dañuy violenter góor ñi mmh. góor ñi dañuy violenter jigéen ñi mmh. lan moo tax góor ñi tamit ñu leen di violenter ci biir kër gi mmh. jig jig jig góor a ngi tëdd ñu fanaane ko xas ba asamaan set su xëyee du ko ñemee wax parce que ruus la ko wax góoru Sénégal la yàlla bindee noonu ruus la maa taxaw ni sama jabar damaa fanaanee xas très bien soxna mi yàndu àdduna ni mel faw dinañu nangu doy baan du ca nangoo wax ah xankay danaa ko nangoo waxal ci loolu danaa ko nangoo wax waaye li may wax góor ñi am journée tamit mm, mm. quinzaine de la femme journée de la femme patite de la femme waaye mais góor ñi lu tax duñu journée ah, waaye les hommes quinzaine xam nga xam nga xam nga xam nga xam ah. góor nga rôle góor euh. ak rôle jigéen waaw si ménage euh. bokkul waaw góor gi bu defee li ko war. waaw yëf yi droit la devoir devoiru góor gi mooy mu dem wuti nangam nangam nangam fexe kër gi naat soxna si nag moom xam nga lan moom moo ko war na fexe saa su nekk jëkkëram mhm. di lekk li mu bëgg a lekk di naan li mu bëgg naan nekk si condition yoo xamante ni yu baax la parce que moom itam loolu jamono ba waa ji demee di wuti pour andi soxna si di ñëw di préparer lu waa ji am si tuyaaba ak yiw ak mbaax moom dina ko am si kanamu borom bi subhaanahu lii nga wax nii lii nga wax nii est indi naa nga ñun suñu génération waaw tey jii ñun ñi ñëpp boo jëlee suñu ay maam waaw wala suñu ay wayjur ñi si ëpp boog boo xoolee suñu kër dante bu njëkkoon xam nga lu ñu siy bind waaw ménagère mooy que ne mu ngi si kër gi wala day taaba taaba wala deful na may comme ni ko ñëpp xamee jàppul woon si dara tey jii nii kooku day am temps toppatoo boroom këram na nga wax mais suñu génération tey lu ñu manqué manqué manqué temps am na temps kenn amu ko. waaw mais dañ koy wut. waaw dafa am temps boo xam ne dañ koy wutal sa borom kër. waaw sacrifié wu pour moom même boo wàccee dix huit heures. Mhm. boo ñëwee na nga fexe sa borom kër. Mhm. comme jox na la dépense. Mhm. lii muy lekk. yow na ko togg si sa loxo. ak nu mu mën a mel mu xam ne sama jabar def na effort. ngir man ma am ma bëgg. am loo xamante ni damay am bànneexu xol. Uh-huh. mën a lekk loo xamante ni lu ma neex la. Uh-huh. mais li nga wax man dama si ànd ak yow. tey jii soxna yi. ñi si ëpp suñu génération. Uh-huh. dama ko xam. allo. waaw kërëb kërëb livreur. waaw mu gàddu ñëw. andi aloo kërëb kërëb. livreur commandé mu indi allo kërëb kërëb. loolu. bu yàggee dafa am loo xamante ni moom lay jur. si xolu ku góor ki. voilà soxna yi. ku góor ki noppi rek nga yaakaar ne ànd voilà. soxna yi il faut nañu lu benn côté aussi. Mhm. nga sallallahu alayhi wasallam bi mu taggee góor gi ni yor jigéen ba pare. si ni mu ko waree yoreek yëpp. dafa wax ne su doon ne day digal kenn. mu mbindeef. mu sujootal nit. day digal soxna. mu sujootal borom këram. mais Oustaz waxin la Oustaz lan moo gën a neex nga toog sa saal yor sa journal l'observateur sa jabar nekk ca soxla ca ca waañ ba woddu pellal di jaabante waañ waag yooyu di ruusi affaire bi di la xeeñ ci kër geeg yooyu ba ba yàq jot muy talal lalal lu rafet nga toog mu la euh, ndi. loolu góor ñu bari amatuñ ko mais mu saxal la wala nga saxal ko sax ngeen lekk loolu day nga violence bi d'accord violence jigéen baaxul et tout ñu ngi koy def mais góor ñu ngi leen di violenté ci biir kër gi dañoo yuuxuwul ma wax la nag ma dolli la tuuti Eva te temps yi dégg naa dañuy waaj waaw ma ma dolli la tuuti loolu waaj a xam nga li ma si bëgg a ah, yokk xam nga mooy lan uude nu mu la gisee noonu la lay awalee nit ku nekk yaay am sa fulla ak sa fayda ba sa kër la fa bëgg en tant que góor mu fay am. Ah. mais sans violence. Ah. verbale. Uh-huh. ni physique ni morale. Mm-hmm. jërëjëf mbokki téléspectateur bi ñuy seetaan ñu ngi ah, waxtaanee li nga xam ne comme ni ñu ko bindee stop au violences bu ñu ko waxee nag euh, ci sensu violence yëpp macha allah ñu ngeen nuyu suñu xarit bi Coumba Gawlo Seck moom ak Souleymane Faye qu'on aime tant ñoom ñu wax ne sëy du du choix chance la ne nit baax na ba tàyyi am lu ko naqadi nit bon ba tàyyi taseeg nit ku baax yàllaa koy def mhm. kon boobu fu ñu yàlla mën a féetale rek yàlla na nu féete ci fu baax fi te dinaay faral di wax ndoy baan mhm. ne ko sooy wax yenn xeetu jigéen ñi pour man sax damay ñaan yàlla mu bañ a am ne ñun wax dëgg yàlla ndaanaa nii la ñuy waxal ñoom la ñu yàlla booleel ñi nga xam ne ñoo am esprit bu positif ñun ñu la ñuy waxanteel xajuñu ci leneen. Mhm. parce que ku xam jigéen. Mhm. xam ne li ko jàpp mooy ki xam jigéen xam ne li ko jàpp mooy toppatoo këram gérer jaboot gérer doom gérer ba gérer waale ka nga xam ne sax ma nga ca ma c'est ça la femme africaine rawatina la femme sénégalaise Mia mun naa la def toog toog un tour à la régie. pour ñu am benn élément. ay madame livraison madame livreur. benn bi sama papa yéen ma ñax may wuti ñax benn waaye na man dama jëndal ma ñaari essence ma jëndal ko essence mu ñëw ma jox ko ko di dem mu xëcc sama loxo daal rocc paak dama soo yuux ma lay jam moom daf ma simeeku ma simeeku ma sëgga ma sëgg ay sam samay loxo moom tam mu simeeku bàyyi ba ñëpp tëdd yéen si seen ñoo dugg si néeg bi su ma naawee nag sama benn sama beneen morom bi si néeg yaay ma itam fanaan su sama yaay sama yaay ma génn néeg dana dem tëddi su ma demee tëddi maa mu ñëw si néeg wa dama xew mu bàyyi ba mu ñëw mu ñëw def ma ko yore paax ne sama sama waxee daf may rey abaay mu jiw mu gañ mu jiw sër bu takkal ko reer ba pare jiw ko dooyee ko saagam génn dem yoonam def ma yow soo waxee la fukk ak kii si dama doon dem ci bitik pour sama mag bi ma ma yónni woon pour ma jëndi mburu après ma dem ma dem ba si bitik bi keneen ku góor fekk ma foofu après mu ne ma lan laay jënd ma ne ko mbuur après mu ne ñu ànd si bitig bi ma ñu ànd seen néeg mu defal ma kii sokola après ma ne déedéet mu ne ñu ànd rek man na moom ñu ànd dem après bu ñu eggee def maa forcé mu tëddal moom dafa wax ne ko waxee sama yaay liñ ci mën a wax mooy dafa jéggi dayoo ndax euh, mënoo ubbi ab journal te gisoo mbir mi euh, mënoo déglu rajo te déggoo ko buus bu buus bu yàlla sàkk man mii ci sama liggéey xam ne damay liggéey ci ci wàllu xale yi amul bis boo xam ni teguma ci sama bët xam nga lu ni mel moo tax faw fiñ ci jëm rek lañ ci jëm Assane Seck mooy faw ñu criminaliser yenn jëf yi. Mhm. bu ko defee mu mën a wàññeeku. xam nga parce que c'est mhm. fort c'est mhm. insupportable. c'est pas normal kenn benn diine mayew ko macha allah. xam nga xale dañ ko war a aar. ko war a sàmm dañ ko war a protéger ndax mooy doon mag ëllëg. te dafa am gàkk-gàkk yoo xamante ni. buñ ko ko taxalee day am lu bëri lu muy def si xelam. bàyyi ko si itam bàyyi ko si xolam. si xelam ak si xolam. xam nga xel xol mën na jéggale waaye xel du fàtte maanaam nit mën na jéggale waaye fàtte moom. lii ma la def di nga ko fàtte. mënta nekk. déedéet kenn mënul fàttaloo nit lu mu mm-hmm. bëggul fàtte. moo tax toujours. bu ñuy def si ñoom nañuy def si ñoom mbaax ak yiw ak loo xamante ni ëllëg bu ñu ko fàttalikoo du leen jural benn rancune jëmale ko si benn doomu aadama sallallahu alayhi wa dafa ne man la lam yaxtarim kabirana wala mi yaarif xaqa kabirana ñu ne ko kooku lu mu doon mu ne fa laysa minna nee ne koo xamante ni respecté wuloo suñu ay mag jox leen cër wekk leen jox leen seen dayoo ba mu mat sëkk. Mhm. waaye itam joxuloo ndaw ñi seen àq. Mhm. loolu mooy mën a wane ne xale yi dañu am ay droit. Mhm. te dañ ko war a sàmm droit bi si jiitu mooy wutal leen waajur bu baax bu dee soxna si la sallallahu alayhi wasallam nee na ko wutal ko papa ju baax. bu dee ku góor ki la mun a wutalal sa doom yaay ju baax. ba waaj ñëwee ne ko dama bëgg ñu yaral ma kii mu am ñetti at dana ko wees na. mu indi ko am ñaari at mu ne ko wees na ko am at mu ne ko wees na ko juddu tey mu ne ko wees na wala dem mu ne ko kii démb te mu ne ko sa ndey ja lañ koy yare sa ndey ja lañ koy yare kon xale yooyu bu leen yàlla defee ñu juddu xam nga tax Eva ah. nit daj na lu nekk pour am takkandeer yàlla ne mukk kon trésor boobu bu la ko yàlla joxee ne la doom la ne la dama bëgg nga sàmmal ma ko yiiral ma ko aaral ma ko donte la yàlla mënal na ko boppam mais responsabilité boobu dafa am lu mu la si séddi yow. kon lii la war mooy nga def si sa kéem kattan xam nga lu tax ëllëg yowmal qiyaam boo ñëwee dañ la koy laaj sa doom noo ko def ñi nga xamante ni ñoom ñooy violenté xale yi. ngal la nañ ko bàyyi. ndax amul kenn koo xamante ni bëgg nga ko violenter sa doom. te réew mi nag ni ko sëriñ euh, moor mbay noonu la wax. professeur ñu ngi koy nuyu bu baax. waxe ko masalu coono. waaw ni mu ni mu ko waxee. Mhm. doo xëy bés. ubbi journal. Mhm. wala nga lu rajo wala nga seetaan télé te doo dégg xeetu violence yooyu. te maa ngi koy wax sànq si yeewu leen islam boo ko jëlee mooy jàmm. Mhm. la paix te la paix ne rime pas avec la violence. yow mënoo nekk jullit bokk si diina diine yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu wax la ni mu nekkoo woon nitu jàmm ak ni mu doon doxee anti nekkoo woon anti violence. Mhm. di si dox di si wëy yow nga ne moom ngay askanoo ba pare. fépp fu ñu dégg violence si jiitu c'est paradoxal. munul nekk nit nag mënoo bëgg a tëgg ndën tama ba pare bëgg ba pare wala nga ko sa gannaaw da ngay tëgg wala nga ko sa gannaaw loolu mooy lan da ngay nekk si lii euh. wala nga nekk si leneen kon diine ji ñu nekk nii daray violence doxu si du si wax ji du si jëf ji du si doxalin bi mm-hmm. kon ku ko si indi yow yaa yaa si boole sa bopp waaye génn nga si bu yàgg ndax diine ji ay valeur la diine ji éthique la diine ji melokaan la kon nañu xam loolu te yëram xale yi sallallahu alayhi wa woon na fa lay joxe kàddu gi irhamu man fil ard mm. yarhamukum man fis sama mm. ñu ne ko loolu mooy leen mu ne du da ngeen bëgg yërmande yàlla ñu ne ko waaw mu ne kon yërëm leen njaboot yi ak ñi nekk si kaw te sallallahu alayhi wa sallam ñaar yooyu la mujjee dénkaane asalaatu julli ñu ne ko ak ban mu ne wama malakat aymaanukum te ngeen yërëm ñi ngeen njaboote te xale yi kenn jiitu leen si njaboot gi Eva macha allah ndoy ban. Mhm. man moom li may ciy wax mooy li koy saafara mooy sanction rek. Mhm. ku wàcc yoon. bés bu ñu nee ku ñu téyeeti nga ànd ak xale. jëf ak moom dara ñu tëj la sa giiru dund ñu àtte leen comme ku rey nit ñun ñun yooyu yëpp buñ ko tegee mais dogguma la ah. projet de loi bi ah. adopté nañ ko dem ba conseil des ah, ministres voilà léegi après dañ ko yóbbu assemblée voté ko criminaliser viol waaw mu jeex c'est que ça parce que crime la da nga yàq dund doomu aadama waaw et puis et di bàyyi intervention yi parce que fii Sénégal la da ngay gis ku def lu ñu weng ba pare am ay supporters yu koy jàppale ci ginnaaw yooyu tamit su fii dindiwuñu ko ba pare lii nii di du du mën a du du mën a nekk da nga gis ku nekk ci biir kër violé xale ba pare nga porté ko plainte ñu ne lu tax nga koy porter plainte wax pare ah, kooku nga xam ne ko xam ne moo def njomba gi am ay nit ñu nekk ci ginnaaw di ko jàpp kooku xam nga lu ko léeg-léeg sax moom mu jayaxu ne moom daal moom kenn mënalu ko daal xam nga kuy def loolu wala ñuy def loolu la kan lan la lislaam jàppe allahu akbar complice yàlla salaa salaam nee na assaakitu anil xaqi cheytaanul axras mm. ki nga xamante ni dafa ñëw gis dëgg mm. ne nañ si noppi wala mu ne patt mu ne ka mu ne ah ne kooku seytaane bu luu la jamonoom dafa am benn soxna su sàcc ñu war a dagg loxoom ñëw am ñëw di intervenir comme ni ngay wax ne que ah sang bi kii famille sangam la bokk de yax bu rëy la de borom daraja la de. est-ce que ko bàyyi jéem a xool nuñ ko nëpp nëppale defar. mu ne walladi nafsi bi yadihi law anna Fatima bintu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam saraqat laqataatu yadaha mu ne maa ngi gën ci yàlla mi nga xam ne sama bakkan bi ci ay loxoom la ne sama doom bi nga xamante ni moom laa fi dese muy Fatima mii nga xam ne bu atul mun nii sama dogit la mm-hmm. bu ñu am ci preuve man maay dagga loxoom moom sallallahu alayhi wa sallam kon ak ku mu mën a doon ku def ñaawteef bu ko kenn interveniral na sàkku xale di leen violente wala lu demee noonu xam nga lu tax parce que viol dafa baaxul sax ci xale bu jigéen waxtuma laa bu góor kon yooyu ay crime la ay crime la te kirim nag dañ koy ne diine ji nag dafa am ñaar yu ñu ci bàyyi xel am na karoot de boo defee lu baax ñu ne la karoot baa ngi nii waaye itam am na baton te bâton bi léeg-léeg dañu war a bàyyi mu dal bu baax waaw ñu war a bàyyi mu dal bu baax ni nga ko waxee waroon nañ ko dagg rek def ko coupure amul Sénégal ñu ngi ñu ah? ngi bateau bi bateau bi par force dafay am ndoy baan des choses vont changer ah, par force dafay am incha allah <laughs> ñu ngi nuyu soxna Aminata Fall Guèye ma nga ca Ndar di ñu seetaan ñu ngi nuyu itam Mame Fatou Fall madame Sarr moom ma nga France macha allah lépp nag dañuy jël nuyoo boobu teg ko ci loxo soxna Fatou Dieng macha allah mu Babacar Dieng ñu ngi leen di ziara am keneen koo xam ne dañu koy jaalee ndax waree fi tam noonu la boo amee sa soppe bu mhm. nekkee ci tiis mhm. da nga koy nemmeeku wax ko ko dalal ko ndax xelam gën a dal mhm. ñu ngee jaale bu baax a baax sunu xarit maam xarit jéen mi nga xam ne dafa ñàkk nijaayam bu ko jege lool ndax moom ay nijaayam ñooy ay xaritam noonu lañuy ñuy jaalee ki nga xam ne mooy soxna Adama Diop macha allah ak Awa Diop yëpp oh. waa yoof yooyu nu ngi leen di jaale ajaratu Anna Anna jàlloo ndey mm. Anna Diallo mm. ajaratu nday Anna jàlloo mm. ñu ngi koy jaale sunu wayjur bu baax ba Papa Ndiambe seen ala El Hadj Papa Ndiambe Sène di nijaay di papa ci ñun macha allah njaal boobu dinañ ko teg itam ci loxo joor ak loxo maa jigéen teg ko itam ba tey ci loxo sunu yaay ajaratu ana Diallo yal na yàlla yóbbu aljana ki nga xam ne mooy El Hadj Papa Ndiambe ñu ngi lay nemmeeku di la ziyaara di la tatagal mm. xaritu ajaratu Kolle Ardo Sow boobu Ndoye Bane lan ngay tàggatoo ndax moment bi doy na waar trop weesu na doy waar mais man man jigéen ñi nga xam ne dañuy sëy ci kër mm-hmm. euh, ba pare ñuy mm-hmm. violer seen doom mm. ñu bëgg koo ànd ak famille ba nëpp nëppal ko parce que dañoo bëgg ba ñoo bëgg a seen sëy complice lañ mhm. dañoo bëgg a seen sëy mhm. ñu viole sa doom surtout sa doom boo xam ne sëy ba sax da dul neexati déggoo ma de ah, confiance dem na ah, jeex naa baal da ngay gis jigéen joo xam ne dañu sëy si indaale seen doom waaw sa jëkkër ci boppam mhm. violer ko wala sa rakku jëkkër viole ko wala sa jarbaatu jëkkër viole ko ñeme woo wax bis bu ñuy du duma ka ka ko violé mhm. yow yaay ji di leen la duma di leen la dumawaale mhm. beneen bi mooy am na beneen violence boo femme yi di dund nga sëy si ci kër fekk sa jëkkër am ay doom yow nga dugg foofu ca famille ba mhm. doom ya di violenté seen jaboru bàyyi seen bàyyi di ko jëleen ca far loolu góor ñi nañu vigilant ci côté boobu des fois nga am ay doom yi seytaane yoo xam ni seen yaay lañ bëgg nga jëli ko indiwaat ko wala seen yaay gaañu na nga takk bi mado indi ko ci biir kër gi. Mm-hmm. sa doom yooyu di gasal ay kàmb mado sama rakk jooju day war na am jëkkër waaw ngay moom su bëgg moom la say que mbaraan mi la war a baax ñii ñëpp mbaraan nañu ku nekkul la yow rakki Eva Trac mbaraan Eva Trac moom mii démb ñoo nekkoon doon ci soirée yu ko bàyyi de xale xale bu baax démb moo ma invité ci soirée bi ngi moom <laughs> soirée suba sax ñu dem ci bos bos waa Bolloré waaw waaw dégg euh, nga nga nga nga nga mu nekk foofu sa jëkkër ànd ak ay doomam mm-hmm. def coalition ànd génn fi suñu jabaro baay wala ànd coalition ànd sonal suñu jabaru baay seen baay ci boppam nekk président bi xamoo ni say doom ñoo gën a sikk kuy sikk jigéen ñi sikk nañu lool mais tey jii même su sa jabar sikkee waroo won sa jabar sa doom yi que ne sama jabar ji dafa sikk lijjanti ko parce que yow yaa lijjanti sa jabar indi ko ci biir kër gi fexe koo défendre après xamal sa doom yi que ni kii seen tante la mm-hmm. seen yaay nekkutu fi ah seen yaay nekkatu fi kii moo fi nekk seen yaay ngeen bëgg ko moom la bëgg leen ko moom la su fekkee jabar ji tamit dafa sikki day def xale yu nakatul noonu nga woo ko ci néeg moom tam régler ko hmm. mais nañu bàyyi di torturer seen jabar yi ci seen kanami doom yi hmm. loolu góor bu responsable du ko def góor bu responsable yow la te xamul ni xale yi ñooy programme yi lépp seen yaay yi nekk ca àll ba gis naa góor goo xam ne bu séenee ay doomam rus naa toog ak jabaram déggu leen ma de xoola ma lool maanaam bu séenee ay doomam dafay rus sax jege jabaram waaw seen nga lool ah waaw ma waaw waaw et puis doom yi dañuy nekk ji xool da ngay doom yi dañuy nekk ji biir kër gi seen yaay yi nekk feneen di fa sëy di lijjanti biir kër gi sa papon toog naa ak moom nu mu ko taajale ak nu mu waxee ak moom lu ci soyo yow ndey xuje maa la takkoon takkatuma la am nañu doom doom yaa ngi nii sëyi nga fële ca ca ca ca saay sëyi nga ca ci sëyi nga ca maas yow koy nobanteel ak maas man ma dooma teg sama jabar yaa nga ci kër maas di sëy looy lijjanti sama biir kër am nag maa nobaat noboo maas daal man mi la fase man nga nobaat ba tax ngay jël sa doom yi nekk sama biir kër di ma jaxase ak di ma di jaxase sama sëy bi yow saa boo tëjee mu am sens non violence yooyu moo am ci biir kër te les hommes am na ci góor yoo xam dañu naïf lu lu neex seen doom rek doom kenn du ko. kii neexal ci injustice du neexal ci yu ci lu jubul et jabar dañ koy yëkkati. jabar dañ koy yëkkati yaay dañ koy yëkkati soo bëggee yëkkati ko. macha allah li ma wax keroog. dama ko liir sax waxuma ko ndax dañuy wax boo jëlee dara fenn. na nga ni da nga ko dama lii ñu def benn proverbe buy wax du proverbe xaw ma nu ma ko mun citation. citation buy wax ni jigéen bu nekk mérité na nga am ku la bëgg yëkkati la ca kaw di la neng nengal ah. toute femme. macha allah ah, tëjal waxtaan bi ah Mass de nee na nii moom. dafa bokk si fii toj na fii wàcc na ba zéro dafa bokk si liy dundal soxna yi. soxna Safiatou si Jamil nu ngi lay ziyaara mi ngi lay ziyaara. maa ngi koy ziyaar sama yaay waxtaan wi macha allah macha allah. <laughs> Eva am mbégte ñëwati si plateau bi. ak euh, Ndoye ak ni ñu ko seqaloon ñëpp macha allah. Mm. Euh, di sof rek si li nga wax léegi. Mm. Euh, jaalaat suñu ndijaay jooju El Hadj Dundoy si la. Mm-hmm. mooy ndijaayu maam xari boobu. Mm-hmm. xam nga maam xari ki ma tuddee sama doom papaam lañ ko tuddee ba pare ki bokk yaayam ndey ak baay di xalifa Diop moo doon sëy ak sam ku bokk ak sama yaay. benn maanaam lébu yi daal yéen nii la rek wër-wëraa da nga rakkam boobu d'ailleurs cousin bi sama yaay lañ ko la tuddee doomam bi mujj waaw kon mbokk gi benn la ma koy jàll di jaayal yaayam ak euh, alxaaji Maas Mbeng waaw dundooy ndax euh, yaay kii gaañu yaayam ak yaayu Maas Mbeng ñoo bokk ndey ak baay ni jaay Maas Mbeng mami dugg léegi sànq ne euh, mi ñi ngi ñuy woo jotuñu ñu mhm. ngi xamal ni ni mami Jóob wérul mhm. dafa am problème mu bopp. baax na loolu yëpp xam xam nañ. nga ñi seetaan xam ko. ñii dugal émission bi sax après ci fii ci ci ci. waaw waaw teel nañ ci bàyyi suñu mënee coppati wax yi mami ñu ñu ñu rassuré leen teel nañu macha allah teel nañu bàyyi xel loolu soxna mami yónnee même message bi teel nañ ko bàyyi xel macha allah Eva mu ngi noonu daal mhm. euh, violence moom nañ ko moytandiku yëpp nag si na lay déparé mhm. xam nga ban violence ban verbal ci wax moo tax saa yu ñu xëyee cër yëpp dañ naan làmmeñ dimbali ñu yeewooti nañ bu ñu duggee rek yaa ñu dugal bu ñu muccee yaa ñu musal lépp si làmmañ lay doore kon wax ji nay rafet ñu siy génnee nay rafet te nekk pusu bay ñaw waaye ba ñu nekk lancet boo xamante ni buy séparé la di dagat dagat. jërëjëf jëf euh, Hadj kontaan nañu lool lool lool vatra loo war a wax ci jàmbur bi ngir yàlla wax ko sa bopp yaa ngay wax defoowu jàmbur yow la nga sikkale yaa ko gën a xam boo toogee yàgg sa borom rek xam nga li nga sikkale lijjantil sa bopp balaa lijjanti keneen macha allah jot amatul liggéey yi bare nañu jiixi jaaxa yi bare nañu ngal bu ñu tàddeel suñu bopp ci ay ay détails kon bokk jigéen yi nga xam ne itam yéen a taxoon ñu def émission bi ñuy wax ne émission bi bi ñi ko sponsorisé itam mooy waa Union européenne ànd ak waa Cégide ak waa World Vision ñooñu ñëpp ñu ngi leen di remercier remerciement bi itam ministère de la femme daf ci bokk soxna Ndey Sali ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di remercier itam ñi nga xam ne ñooy technicien wu Mia Ndour yi noonu laa leen tuddee ñoom Mass ñu ngi leen di remercier ñoom Abdoul Aziz Fall Babacar Am ñoom ñëpp kontaan nañu vraiment ci liggéey ak ñoom alors Calix Calix euh, Calix Store moom laa jël Kani merci pour les beaux foulards kontaan nañ ci loolu ça rehausse vraiment et c'est de qualité 100 pour cent soit ma nga nekk ci 77 533 89 89 77 533 89 89. soxna Fatou si da baax maa ngi lay ziyaara bu baax a baax dugg ci kër yi mag yi di ziyaara soxna yi baax yi fa nekk ndax ñoom ñëpp ay yaayu daara lañu yal na yàlla suturaal leen sàmm leen may leen fan yu gudd ngeen yàgg fi loolu di gunge njaboot gi ñu ngi leen di souhaiter ñun un bon week-end lañ leen di annoncer dès maintenant et bon appétit à lu dul baax baax a ko gën allez arrêtez de violenter les jigéen wurus la dañ koy raxas saa su ne di ko toppatoo naka yonent bi waxee sallallahu alayhi wa sallam jigéen porcelaine la de réfléchir.